ibnu abdallahi bil furdala inal kawaakiba yox fiyaa sinemaaru daf ne bu ngeen tànn bu ngeen wax lim gaa yu baaxi bu leen ci boole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngeen koy jël ber ko teg ko ne ba wax ak ñii ba pare soog a wax ci moom ndax nee na leeru weer wi def leen di nëbb leeru biddiw yi yonent bi moom mooy ak mbaax ci boppam bokkul si ñu baax ñi waaye moom mooy ak mbaax tey jii su ma leen ko doon misaal bu fekkoon mbaax lu ñuy mesurer la yonent bi sallallahu alayhi wa mooy mètre bi ñuy mesurer bon moom kenn du ko mesurer ah wa naasu wal mizaanu ci moom la yàlla di peese nit ñi ba kenn ku nekk ñu xam sa valeur jërëjëf sëñ Cheikh lu ñuy wax naan lawbe moo neex a jaam nga limbaan wa naas wal mizaanu bon mbaax bu doon lu ñuy peese yonent bi mooy balance ba boobu moom kenn du ko peese moom mooy joxe kenn ku nekk sa valeur bon léegi ñi nga xam ne tey jii dangay gis kii ragal yàlla lool gis kii ragal yàlla ragal yàlla gudd guddoomu gis kii ragal yàlla tuuti gis kii ragalul yàlla loolu lan moo ko waral mooy kii dafa naan ci leeru yonent bi ci fànn ba nga xam ne mooy fànnu ragal yàlla kii daf cee naan tuuti kii naan ci lu bari kii naan ci li dugg doomu kii naanu ci moo tax ñu wute xam yàlla itam noonu la rek ñii dañ cee naan ba doon yonent am nubuwa ñii naan si ba doon mursal ñii naan si ba doon waliyu ñii naan si ñii naan si ñii naan si loolooy indi différence bi dëddu àdduna itam noonu la leneen itam noonu la leneen itam noonu la bon yonent bu nekkee ab yonent mooy dafa naan ci leeru yonent bi xam-xam bu bari bon tey jii xam-xam yépp ragal yàlla yépp wala bépp ko bu baax boo xam ne nitu diine am na ko ba ko puukarewoo yaa ngi ko naanee yaa ngi ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa bon loolu doy na misaal fi may daanelee moo di ci tëbb googu ba tey ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne damay wax ne fu nekk ma nga fa lu nekk ma nga ca markam fu nekk nga koy gis mam la sëñ Tuubaa huwa allazi faaxa siwa min albaraya bil oda ata bada kaddu sama fi arsika almuazim wa fi jinaani wa suxu wa fi wujuhi wa kuhu wa bii ramaay wa suyuf xalaqa kulla sanam sa ya bi dafa baax a baax a baax ba yàlla dafa jël turam bind ko ci aras tamponé ko loolu mooy marque yonent bi dafa am ci aras loo gis marque yonent bi a ngi mooy la gën a rëy ba ci la gën a tuuti atome bi sax boo ko xaroon fekk ci marque yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que waxuñ ne xaw ma lan électro xaw ma lan su 92 la <laughs> hein électron la loolu marqué yonent bi sallallahu alayhi moo tax nit bu demee ci salaatu ala nabi dana dem ba mujj gi buy naan ndox sax day gis yonent bi ci biir ndox mi buy lekk sax day gis yonent bi ci biir lekk gi moo tax Sëñ Tuubaa nee na huwa nasbu ayni yonent bi mooy le cible de mon du mooy benn yoon yonent bi sallallahu alayhi sama regard yëpp saa yu ma xoolee yonent bi rek laay gis moom laay gis ci lu nekk moom laay gis fu nekk moom laay gis ku nekk sallallahu alayhi wa sallam damay indi rek ruu yi bi leen yàlla bindee fi ñu jaar ma daane lay foofu incha allah loolu bu ko defee sëñ Cheikh thème la bu am solo boo xam ne war nañ ko développer ba bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi rëy ci suñu xol ba nga xam ne fu ñu nekk dootu mën a dootuñu mën a muñ di ko tagg dootuñu mën a muñ di julli ci moom ba nga xam ne ku bëgg yonent bi nag foo nga bëgg xasida yi ku bëgg yonent bi foo nga bëgg sëñ Tuubaa bon loolu warugar la si ñun ñu jëmbat ko ci xolu mbokk taalibe yi ñaanit yàlla jàppal ñu jëmbat ko si jëmbat ko yit ñu nit suñu xol bon yàlla dañ ne am na huit étapes yoo xam ne ruu yi jaar nañu fa muy ruu yu gaa yu gëm yi waaye ruu yu yëfeer ñoom du si yëpp la jaar dinaa ko lim yàlla laata muy bind ruu yi leer gi mu war a bindee ruu yi la njëkk bind muy matière bi mu war a bindee ruu yi matière boobu naan na ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa muy benn naan mu daldi di tën ruu yi séparé leen ruu gu nekk naan ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa muy ñaareeli naan. yàlla laaj leen alastu bi rabbikum ndax dama dul seen boroom am na ruu yoo xam ne naan gi ñu naan ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa tax na ñu am affinité ak moom waaye tax na ñu bëgg ko sopp ko ba bi ñuy wax bale dañ ko wax ak cofeel akuk nangu am ruu yoo xam ne ñoom naan gi neexul ci ñoom ñoom dañoo wax bale ak contrainte waaye biñ gisee ruu yi nga xam ne ñoo naan te mu neex ci ñoom wax bale lim leen ci ak texe ñoom itam dañ ne dañoo bëgg naan yàlla nandal leen lëndëm yàlla nañu si yàlla musal ñooñu yàlla lëndëm la leen nandal ñee mu nandal leen ci ak leer waaye nit ki itam bi mu duggee ci biiru ndeyam ba tàmbalee formewu ba cëri tàmbalee génn roo leeru yeneen bi dafa fekk mu naan ci ba màndi looloo taxam taxa ay bëtam fett ruugu ci naanu loon sa bët dafay gumba booy judd wala say nopp dafay fat wala sa gémmiñ du xar wala say articulation du nooy bon li tax articulation yu nooy bët yi mën a gis nopp yi dégg làmmiñ yu mën a wax mooy leer gi ñu naanoon ci biir nit ki nekkee ci biir ndeyam xoolal xiiwal gu toll noonu li la ko defal waaye yàlla bi muy dugal ruug yi ci jëmm ji leer gi dafa ñawaat nandalaat liir boobu nekk ci biiru ndeyam bu du loon loolu ruug yi du nangoo dugg foofu ci jëmm ji ndax jëmm ji dafa tilim daf ko seexlu waaye leeru yonent bi moo tax mu dugg foofu sallallahu alayhi wa sallam waaye liir bi bi muy juddu leer gi daf ko fekkaat foofu mu naanaat moo tax mu mën a lekk ci gémmiñam bu du loon naan gim ci naan du lekk ci gémmiñam bon ku lekk war ngaa sant yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ku julli ak say cër nooy war ngaa sant yenent bi sallallahu alayhi waaye bi mu waree nàmp leer gi dafa ñëwaat mu naanaat si moo tax mu mën a nàmp weenu ndeyam bon lii mooy huit étapes yi nga xam ne yépp yonent bi mu ngi ànd ak ñun di ñu dimbale di ñu nàndal ci leeram te gis ngeen lim ñu jural bu ko defee ruu yéeféer yi ak seen jëmm wala jëmm yéeféer yi dañoo naan ci leeru yonent bi mooy bi ñuy formé wu pour cër yi nooy ak yépp ñoo ñun ak ñoom a ko bokk pour ruugi dund naan gim ci naan ñun ak ñoom ñoo ko bokk bi muy judd pour mu mën a lekk ci gémmiñam am appétit ñun ak moom ñoo ko bokk ak yéeféer yi bi ñu waree nàmp mu ñëwaat nandal loolu ñun ak ñoom ñoo ko bokk bon am na ñeenti étape yoo xam ne ñoo ko bokk moo tax ñu ne yéeféeri bu dul woon ñeenti leer ñeenti yoon yooyu ñu naan si leeru yonent bi salaa salaam flaamu safara yi fii la leen fekk lekk leen waaye wor ma bu safara am ak wekk gu mu wekk ci yonent moo tax leeru yonent boobu nekk ci jëmm yéeféer yi sax mu ngi ci looloo tax safara fekku leen fii lekk leen waaye ñu ne yonent bi sala moo tax ëllëg yomal xiyaam bu leen yàlla di dugal safara dafay rocc leer googu yëpp ñu soog a mën a tabbi safara nit tam boo xoolee ni ko yàlla bindee nit ci Muhammad feeñee ëllëg yomal xiyaam bu koy bu fekkee dafa war a dem safara yàlla day soppi jëmmam ba du yor jëmm yonent bi sallallahu alayhi yonent bi bi mu wàccee ci àdduna àjjana dafa bëggoon ñëw fekk si ko fii dafa bëggoon ñëw fii yàlla moo ko joxaat ndigal ne ko nag maanaam na dellu ndax moom ci maanaam ëllëg la bon jàpp naa ne wax jàppuñu woon sax ne danañ ci wax bon lu toll noonu waaye xañ na barke yonent bi la ak neexaayu jotaay bi bon jàpp naa ne liñ fi wax doy na sëkk ci koo xam ne bëgg nga médité bon ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi jéggalu di delluwaat di nuyu ñoom sëñ Cheikh ak sëñ Baara ak suñu ñoom sëñ Pam Ndiaye ak ah, suñu goro mu ngi may fàttali santam léegi euh, ñu ngi nuyu tam soxna yi ak góor yàlla yi di nuyu ñëpp rek. dañu ñëwoon pour barkeelu ndax fan yëpp maa ngi koy Seex yi bopp bi day xaw a métti lool yaram wi xaw a diis moo taxoon ñu ne di jéggalu itam ci dog gi ñu dog xaside yi euh, waaye li ñuy wax it xaside yi rek la ñuy nettali ci wolof bon ñu ngi leen di delloowaat euh, micro bi incha allah sëñ Cheikh a ngi fi dana mottali bon li ci des ñuy jéggalu bu ko defee ñu itam ñu mën a yolomlu rek incha allah. mën a delluwaat euh, kër ga waaw baax na jërë ngeen jëf bi yonent bi salaay salaam juddoo daw nañu ba tasee fóonante te ñoom ay rabu àll rek lañu waaw naka nag ñun ñi nga xamante ni yonent bi yàlla daf ko génnee ci suñu biir mu nekk être humain maanaam mu nekk nit comme bon teraanga ju toll noonu ñun li ñu sédd ci yonent bi ci mbindeefu yàlla yi amul benn mbindeef mu ko ci sédd bon kañ dajee saafuwante ndokkalante bég tey bégle ñun ñii la war a gën a war ñun ñi la war ñun mbindeef yi ñun ñun doomu aadama yi waaye rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñooy wax waa kër Serigne Touba muy mu rasul mulkul alil baaxil xaddiim jaxale ni asnal xaddiim man maay le meilleur serviteur du prophète ñiy liggéeyal yonent bi man la ci yàlla jiital ma liggéeyal ko nag liggéey boo xam ne kenn mësu koo liggéeyal liggéey bu mel noonu dox ne képp koo xam ne njortu nga ne mën ngaa liggéeyal yonent bi liggéey bi tool ni liggéey bii ma ko liggéeyal nee na maa ngi dàq sa njort loolu man naa ko liggéeyal liggéey boo xam ne lottal na képp koo xam ne jógati nga pour liggéeyal ko Cheikh laay daan faral di wax ne bu ñuy gubali mbaam tan moo ca war a ëpp say xëy na ñuy gën a féete ndaw mën nañu bañ a xam wolof yooyu ndax tan bu duufee ndax mbaam bu duufee bu faatoo kan moo ëpp ëppale waaye bon ñun ñii sëñ Tuubaa ne yàlla cërale na ma ci boppam cër boo xam ne kenn mosul am cër bu toll noonu am naa ci yàlla loo xam ne kenn mosu koo am ci yàlla am naa it ci yonent bi sallallahu alayhi wa loo xam ne kenn mësu koo am ci yonent bi noonee it laa amee ci alxuraan loo xam ne kenn mësu koo am ci alxuraan loolu bu ngeen demee ci nuuru daara yi na ko loolu yàlla moo ma ko cërale bon ñu jàpp ni bon ñun li ñu seddu ci yonent bi kenn sedduwu ko nifaal yi wa ibqaa yi wa fawzi bila ana bi kaw ni xaddiimal Mustafa taqbayan nee na sama njëriñ yi ñépp xam nañ ne Sëñ Tuubaa borom njëriñ la bañ ne boobu xale yi bu ñuy fosaa di sànni tàngal ci kaw dañ naan daam yaa bari njëriñ mbir yi sotteeku loolu ku bi ñu nekkee xale daan nañ ko def daam yaa bari njëriñ Sëñ Tuubaa nee na nag njëriñ yu bari yooyu nga xam ne am naa ko ak ni nga xam ne moom noonu la ma yàlla defalee jamono nga xam ne lu jamono gën di yàgg samay may di baa di gën di baawaan di gën di bari génération bu ñëw yaakaar ne maa ngi ci seen biir ak texe gi nga xam ne texe naa ko te di ko texaaleel képp ko ajoog man bi kaw ni xaddimal mustafa te tabayanu maa ngi ko amee ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bon moo tax ma ne bon bu ñuy màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñoo ci war a gën a farlu te déglul wax ca Samsul Arifin laylatu mawlidi nabi laylatul mahwi riya bi laylatul mahwi taxa bi day def ne قرب مولد النبي ليلة ما وري بي مام خادم النبي moo njëkk si wali mayam bon sëñ Tuubaa moo njëkk siiwali mayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may yi nekk ci màggal juddoom ndax dafa ne xayeetu mawlidu nabi min assasine maa ngi tàmbalee màggal mawlud en 1883 boobu rek la fi Maam Mor Anta Sali jógee boobu rek la yoonu murit sosu nee na man booba laa tàmbalee di def mawlud ci dat yi ñuy joxe fii ci senegal amul date sax bu ci jege date boobu dat yi ñuy joxe fii ci Sénégal kenn ku nekk di wax ne booba laa tàmbali amul benn date bu ci jege datu Sëñ Tuubaa boobu way woowu Cheikh laay wax loolu lay firi moo njëkk siiwali mayam moo njëkk bokk na si njëkk organiser gàmm fii ci Sénégal di siiwal ay mayu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne yow weeru rabiul awal ci biir weer yow ndamul allahu buur bi moo dogal nga làq juddug xaritam xayru rasul mooy xaritam moo tax ñu bind lu fi am lawhul mahfuz wa xalam salla alayhi wa bon bis bi événement bu rëy la bis la boo xam ne bu barkeel la bu bëri njëriñ bis la boo xam ne tam bis bu sacré la ndax loolu la sëñ bi wax mawlidu woo muazzamu mubarakun muxtaramu taxzimuhu yanatimu li zawi taxadum taxzimuhu bi sunnati yaxuduna lil jannati bi isdiyaadil minnati li muxlijin maazim bon bis la bu màgg bis la bu barkeel bis la it boo xam ne bu sacré la moo tax mu ne nag bon war na ci képp koo xam ne njiit nga soo wootee ñu wuy si la war ngaa woote ni ko sëñ Cheikh defee nii ànd ko ak waa xidmatul xadim yëpp dafa mel ni man dama tàmbali sax te nuyoowuma waaye bëgg a wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa rek a tax ak yàkkamti ci loolu moom moo ko waral waaye ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp jaaruñu woon ci benn tur waaye xam nañ ni lii ñuy wax ci yonent moo leen gën a ñor ci ñuy tudd seeni tur sëñ Tuubaa waxuma ne at bu jot lay màggal waaye war nañ di fàttali ni sëñ Tuubaa semaine bu nekk day day gàmm képp koo xam ne mosoo na la sañculoo dëkk wala nga yor mbooloo sëñ Tuubaa sant na la ne la dama bëgg guddi altine gu nekk nga màggalal ma juddug yonent bi ndax loolu man daf ma war moo tax dëkk murit bu mag bu nekk boo demee fekk nga fa tànt walla fuñ tuddee mawlud ba daarul moxti ba tey jii altine maanaam guddi altine gu nekk dañuy fanaanoo jàng jës bu muqaddimaat maa ibu nii ñu koy defee jublu si màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ak sëñ Cheikh mii dem nañ fa benn at waaye dem nañ ba teewee jotaay boobu luñ daan dégg la waaye teewee nañ ko loolu ana kan moo koy def fii ci àdduna bi ñun xamuñu ko bon loolu war na tax ñun itam ñu gën ci gën ci góor góorlu ñu bëgg a tënk rek suñu intervention ci benn wax boo xam ne Ibn Ataillah moo ko wax muy kenn ci nitu yàlla yi nga xam ne dañu bokk ci tarixa fadaliya ana lu mu wax da wax ne nixmataani maa xaraja mawjudun anha anhuma nee na ñaari xéewal ngi nii amul benn mbindeef moo xam ne mucc nga ci ñaari xéewal yooyu ñu ne ko ñaari xéewal yooyu mooy yan mu ne nixmatul ijaadi wa nixmatul imdaadi mooy xéewalu amal ak xéewaluk tëbb amul benn mbindeef bu ci mucc mooy génnee gi ñu yàlla génnee ci lëndëmuk ñàkk indi ñu ci leeruk am mooy nixmatul ijaadi moo ñu génnee dans l'inexistence dans les ténèbres de l'inexistence indi ñu dans la lumière de l'existence xew loolu benn xéewal la waaye yàlla bu ñu fi indi woon itam bàyyi ñu fi te dundaluñu duñ fi mën a nekk duñ fi des waaye yàlla bi mu ñu fi indee ba noppi daf ñuy wërsëgal di ñu toppatoo mooy al imdaad mooy mu ñuy tëbb ay mayam yoo xam ne mënuñu ko ñàkk pour mën a exister bu njëkk bi moom ñëpp xam nañ ko leer na nañ yàlla ci yërmandeem la ñu amalee ñu war ko sant ci amal googu mu ñu amal ndax nekkoon nañu amuñu woon sax tur walla ñuy signifier dara bon tey jii bu ñu amee ba mën a signifier dara am tur am kër wala leneen ak leneen ci mbaaxu yàlla la moo ñu génnee ci lëndëm googu indi ñuy amal ñu nixmatul imdaad boobu muy leeru wërsëgal ñu mën nañ ko xaaj ñaari xaaj mooy wërsëg boo xam ne day dundal yaram wi muy wërsëgu yaram ak yërsë ak wërsëgu ruux tey jii ngelaw bu amuloon oxygène amuloon duñ duñ mën a dund waaye lumière soleil bi tey jii bu amuloon duñ mën a dund bëri na loo xam ne lekk ak naan ak yooyu yëpp bu amuloon duñ mën a dund bon mooy tëbb gi nga xam ne yàlla ngi tëbb wërsëg woowu ñu mën di ko lekk pour mën a rester dans l'existence waaye weneen wërsëg wi mooy wërsëgu ruux mooy imaan mooy gëm yàlla wërsëg la du ñëpp ko am du ñëpp ko tollee wërsëgu ragal yàlla ak yu mel noonu maanaam yàlla ci tëbbam googu si la wàccee téere yi ñuy mën a jubal doomu aadama yi di mën a defar àdduna bon tëbb googu moo ñuy génnee ci les ténèbres de l'ignorance indi ñu dans la lumière de la connaissance loolu xéewal googu muy ñaari xéewal yooyu ci mbindeef mi gën a rëy ci mbindeef yàlla yi ba ci mbindeef mi gën a tuuti nga xam ne atom la walla ñoo xam nuñ ko tuddee amul benn mbindeef mu mucc wala bu génn ci ñaari xéewal yooyu bon ndax bon warugar la ci bépp jaam wala bépp mbindeef ameel nga yàlla cant bon cant googu waaye ñu xam ne xewal yooyu yëpp ñu jot ñaari xeetu xewal yooyu yëpp ñu ngi jotee xéewal yooyu bi barakati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy intermédiaire xéewal yooyu mais mooy origine mooy origine sax xéewal yooyu bon ñun ñëpp yoreel nañu àq yonent bi ameel nañ ko cant ameel nañ ko njukkal ci amal gi ñu yàlla amal ndax bu duloon moom bon du ñu am xéewal googu duñ ci jot ba nekk waaye bu taxuloon ak moom it wërsëg wi nga xam ne mooy tax ñu mën a des ci àdduna wenn wërsëg duñ ko jot bu duloon yonent bi pepp ndox du wàcc ci kaw suuf bu loon yonent bi pepp dugub duñ ko mën a récolter bu duloon yonent bi duñu mën a naan ndox bu loon yonent bi ngelaw du ëpp bu du duloon yonent bi bu duloon yonent bi bu duloon yonent bi buñ ko doon compter du jeex ndax kuy compter mayu yàlla yi mayu yàlla yi du jeex waaye may woo ci jot lu mu tuuti tuuti lu mu rëy rëy rëy rëy xamal ne yonent bi moo la ko jottali bu du duloon barkeem ak leeram doo mën a nekk te doo mën a jot ci xéewal yooyu waaye ñu xamit ne yonent bu fi ñëw jàngale ma nga jàngale ci xam-xam ci téere boo wàcce imaan gi nekk ci suñu dënn ak lépp xamal ne ku ci jot lu néew néew yaa ngi ko jotee par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa waaw kooku ndax jaruloon tey jii ñu daje walla chaque jour ñu daje di ko màggal jar na ko bu baax a baax bu ko defee ñu bañ a guddal waaye dañ koy tënk ñun ñépp xam nañ ne min nuurihi kullu nuuri ci leeram moom yonent bi sallallahu alayhi wa la yàlla bindee bépp leer wax nañ ko sànq moo tax ñu bind lu fi am lawhul mahfuz wa xalam salla alayhi wa dañuy wax ni bi yàlla bindee suuf lii nga xam ne génn na ci suuf yépp dara amuloon ndànd foy foy kese la woon yàlla sàkk ñetti kuréelu malaaka kuréel gu nekk nekk soixante di mille ange yàlla am lum leen sant ne leen kuréel gu nekk dangeen di wër suuf si waaye yow kuréel gu njëkk gi li lay sant mooy dee dee leen wër rek di tudd turu yonent bi ci kaw suuf sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy wër mu boolee nag leeru yonent bi fu ñu jëm di dem ànd ak leeru yonent bi di wër waaye di tudd turu yonent bi rek di sikkar turu yonent bi mu ne yow beneen kuréel gi li ma la sant mooy del seere mbaaxug yon seede jege gi yonenti yonent bi jege deel seere itam wàccuwaay bu rëy bi mu am ci man wóor leen rek di wax loolu mu ne yéen beneen kuréel gi dee wër rek di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci wër boobu malaaka yooyu doon wër ci la demee ba géej gi dexi tàmbali di daw garab tàmbali di sax ngelaw li tàmbali di upp asamaan tàmbali di taw lenn lu nekk muy njëriñ loo xam ne mu ngi woon ci biir suuf tàmbalee ball ni ma ko ni ma koy déggee mooy dafa melal ni loo xam ne yàlla dafa ko programme woon te amul animation waaye ñu xam ne yonenti leeru yonent bi kuréel yooyu a leeru yonent bi ñu àndaloon ak tudd gi ñu doon tudd yonent bi moo tàmbali animé univers bi lenn lu nekk njëriñ la nekkoon ci yow tàmbali di feeñ loolu loolu xam na rëy na de maanaam yonent bi des nañu xam dimension dëgg dëgg dëgg lan la te yii occasion la pour ñu xam dimension yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bon noonu la nañ nekk di wër njëriñ yi génn ñuy wër njëriñ yi génn ba lépp mat bon njëriñ yooyu nag ñun moom la ñuy dundee moo tax ñu mën a nekk ci kaw suuf bon ku lekk ba pare boo sante yàlla war ngaa julli ci yonent bi sallallahu alayhi waaye déggee leen ci ndekee xool leen julli ci yonent bi lim mën a def dans l'univers ku ko xamoon dootoo def benn jaamu yàlla lu dul di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sànq maa koy wax am na malaayika yoo xam ne. gàmm nañ ko ba noppi ndax li fi wax moom daanaka gàmm la benn tomb boo ci jël rek gàmm gàmm la rawatina nag tomb yu bari yi fi jël pour que yàlla yàlla gën a doole xam-xam gën doole barke. yàlla yi tegaat la ci yoonu gàmm. jërëjëf Muhammad ak Cheikh Xadim naa bu ko defee kon dañuy continuer jotaay bi rek. bu ko defee sëñ bi mu ngi fàttali ne gàmm yi daan faral def at bu jot muy gàmmuwaat bi incha allah le 22 lañ ko jàpp ci Dakar ci kër ci daara ji foofu. incha allah kon ñu ngi koy yëgal mbokk teel bi ñu ngi koy yëgal mbokk teel bi yëpp rek bu ko defee ñu parce que yéen ko jàpp le 22 yaakaar naa mooy samedi bi di ñëw. samedi bi di ñëw bu delsee incha allah yàlla incha allah yëpp jàmm. defee ko xam naa ne jox suñu baara moom mu feeñee yéeneem ci guddi gi moom it di ko sant bu baax a baax ndax waroon na itti lool nag jóg ñëw ci moom waaye xam gi nga xam ne xam gi ma xam ne moom ci daara la bokk moo tax dara daara ji koo tànkam te at bu jël at bu jotee ñoo koy ànd ñeneen koy àndi rek kon moom it ñu ngi koy baax yàlla na dem ko dëjël bu baax barke Cheikh Xadim kon suñu baara jox ko bisimilah mu. Euh, ñu ngi nuyu ñëpp di balu ak di leen baal di ñaan yàlla guddi gi yàlla na ko fi teew na gën a déwén bu fi teewee na déwén yàlla na sunu jaamu yàlla yokk yàlla na sunu bëgg sëriñ Tuubaa yokk yàlla na sunu wér yokku yàlla na sunu wërsëg yokku barke Seexul Xaddim ñu ngi siyaat baax sëy Babacar Guèye waxtaan wi am na solo lool ñun boo doon waxtaan ba bët seti duñ doyle ndax buñ toogee di jàngit xasida yi li muy neex neex suñu xol yi xam li ci sëriñ bi nammoo ak ub jubloo moo nu ëppal njëriñ ko defee jataay yooyu yu mat di yaatal la di siyaar baax a baax sëriñ Cheikh Thioune mi euh, sëriñ Mansour ak ma Massamba sëy sëñ Cheikh ñoo ngi lay siyaar baax di la yàlla dolli sa taxawaay yal na yàlla barkeel yal yàlla musal la ci am ndot yal na nga yegg ñi topp ci yow yal nañ yegg barkeb sëriñ yegg xam naa dañuy barkeel kon xasida bu gàtt rek ndax danoo jëm ci mag te am na fu jaar barkeelu waaye bi ñu bis bi tànt nañ ko fii te yàlla dogal fan daan jànge ji ren demunu ko ndax sutaanteeg yaram ak itam ay gàllankoor yu mu ne su la wax nu fas yéene fu ñu def gàmmu gi rekk nu fas fa yéene teew sàkku fa tuyaaba jooju te fenn gënu caay fii dëkk te jaxasoo ak yéen jaxasoo gi da duy at du wërsëg waaye bokku bëgg la muy bokk bëgg Sëriñ tubaab nu naw leen lool ci aw doxin war a mën a roy ci yéen kon fu ngeen nekk rek war nañ faa teew kon nu barkeelu xasida bu gàtt rek auzu billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmani rahimi wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman yalla ubil mustafa shindidi yallahu وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سنديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكليمك موسى سال خدر وبي شعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح أن يونس اليسي وشكري يحيى يا الله داود جاء بي وروي الله بل صلاة وتسليما عليه له ولا آل وسب والأسواج الله واسب لنا علينا ربي عافية وهب لنا قص في دارين يا الله وانت لنا كل باب كنت فاتيا لسادين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا سللا warul lana jinna wa seytaana yàllaaw wa jamilan kula maanano wa naqsudu wa am lana kula ma naxtaar yàllaaw warul lana kula si shahbin wa shiaranin wa yaashiran kula si tashir yàllaaw tawil lana umrana shaa'ilana badanan وهب لنا رزوا توفيق يا الله ودمرا كل رهداء تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاء يا دهر يا الله وآفة آهة مرقوسة ميان سلسالة شدة والفقر الله دعنة خلة مسيلة خلب وماقة عتس والجوع الله وفنة والوباء والأرخ مقرق والبرخ مشرق والقد الله حار وبرد ونهبي كربة نقم دلالة أرج والخمي الله وامة وخطا يدالة سلل والمسق والقصف ثم القصف الله وخلة مهجنون إلة مرد ثم الجسامين ونساني الله ومن قبيات دنيا ثم آخرة ومن فدوهما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوى بالقهر الله جعلتك قلبا قاسيا متواضعا وعلما كثيرا في الله وتوبة قبلت ممينة رفعت ما زوجة صلعت بديني الله وكن معيشا لنا من شر شيء أسد ما شرفا من وسر العين الله وسر الشهر وسر القلق امسيمون اليوم مهجني وسواتي شمي الله إني جعلتك في دارين يا زفتي إشنا عشينا فكن ملجاي الله فلا تكل إلى نفس فالك كن مجيبني عيش ما أدوك يا الله وجل شاني وقلبي ساكري كمان عند الممات ما الإيمان يا الله شبت يقيني في قلبي بلا وجل أتاوي بلقاك أق يا الله ورجال الموت راءات ومفراتا من كل شر وكربي داخ يا الله وفصلي الجسم أي شروع فرقني في الخبر لا تبين دهر يا الله وكن نشيري عن أنيسي إنما دفنوا جسمي فزرت ويدا سمي الله لا تلم من مي ما قد يراودني مالكيا كل ما أخزاوي الله ونجني وجميع المسلمين من ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولا واستر نائبنا والتبنا وبها في الأولياء الله أنا تجاوز ويا الرمان فما أنا سواك وأنت البر يا الله في برزق ما خبركنا وسرا ومن كروب وخوف نجي الله لا تختبر بما ليس بقادرة ولا تغير رجاء فيك يا الله وأسقنا ماء من ماء كوشر من اخترته من جميع الخلق يا الله من كان يفسد ساقين ويلك ساقين كفر وينشر من يخشاك يا الله محمد مسكي الأخيار قائدنا لي جنة خلد يوم الأسر يا الله عليه صلي وسلم دائما أبدا ومن خفه ليوم دين يا الله عليه صلي وسلم دائما أبدا ومن خفه ليوم دين يا الله عليه صلي وسلم دائما أبدا ومن خفوا ليوم دين الله قد قال موسى خادم الخديم لمن هوى تقدم الخديم يا زايد xoli dellu seeti kuréere mbir day laaje xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki amal lu ngeen amul gu may njàccaar laa ngi te ngeen ne wedam man ku xamul laajul ku xam xaw maw layam ku toppatul yàlla na toppi waaye yàlla mbaalu ko dal bu mu ko xul fo nan jéema topp yàlla toppi ndigalam tey jéema daw seytaane xammi ñuy dugalam tey jéem a roy roru jaalullaahi tey jéem a roy fi maxtaaru laa la siina fuusakum taxtaaru xad jaakum min al ilaahi nuuru ba maa jagoo kuraa la shandanar baba jaar ak في البحر والبار ونال الدهر سيدان بني ak bakkan ak dunya ku leen fetal daaneel nga noon yu bon ya bamba jaar ak ñoom jaadu nafsi boobee sëriñ sanga ko naan li lapsi xataltu fil bahri la wax saytaana kakabo xayral wara awtaana nuubal baa nga seba xeex ca geer ba nuroowul ak siwil keroog payoor ba waman yuhajir fi sabilillahi mboon ma yaa ko yóbbu foofa duuna laayin déglul ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Seex Bamba reyal demam ga taarix ba ama jey sasin mooy at ma moo doon lalub Sëriñ Basiiru mbég ma nee na la yàlla defaloon kalima fidaar yi defal ko Ibrahima ba yàlla buur ba farataal tabaski ak tam xarit may na ko gaayi Mbàkke bi xidmatin xadimi lil maqdoomi fil bahri far leen ila tasimi la daam wesar ca mbooti yoonu géej ga laay bëgg a xam na bambaati géej gi boo ko xamul yaral ja saawu sakkoor jawaabi Abdallahi loola moo wóor nee na dogon dem gi wolof nasraanu te kon billaay ñëpp dem ni raani ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di daggu chef yi wuur ifam nasraanu ñuy jaxasoo kàngam ya ak nasraan yi ñee defe xaadi ñii di ànd ak naar yi yii doomi soxna dal di sampi daara te donga yaa jigéen ña mel na saara shiri ak saara yendu caawo ndaw jaxasoo bambara fed ak caawo sëriñ si àndandoog wuur i fab di daane ñale di tux ñale di fóon ñaley doxaani ñale nga doon wañlu ñaley bandaani ñale di tariyaaxi ñaley wañaani góor ñi jigéen ñi jaxasoo di caaxaan lamb ya gor sabar yépp jaaxaan kenn amatul xas bi li ilaahi kaa nga ki fóore ñéppi janilaahi lislaam di jooyi kenn ba kenn gàddaay ci soowu jant fépp mel na lambaay Cheikh Bamba dali ñaan ci barkeb jiili la yàlla maay saafi wa kulli jiili maay xaatimu rasulu fi sudaani maay ramu xarna bi ani niraani bur yàlla daali siñe jox yonan baam mu siñe gaay jiital say Bamba lisaanu al daal di waxanteeg Bamba ci saaru Yuusufa mu teeñu yan baam Bamba na maay na ma dalub lislaami sëf leen ma joor leen ma dinaa ko jaamu yàlla na astaxlisu teg li nafsi man maa gën a yey ci bamba doonal xabsi keroog la ñaan buur yàlla yoonu géej ga ngir ga liggéeyal Moustapha may géej ga ngir booba wuur yaa ngi koy xëccoog sëriñ si kàngam yaag tubaab ya naan ko merci aduna ak alaaxira di ga ku nekk naan maa koy jël sama goro ba xaaju moom ko yirkan jëngal te bunti bur ko cey kon ko asbil ilahu dahran wala ilaha man yàlla doy ma doyloo naa yàlla maa indakum yan faddu jàng naa ko bila alal du tax ma jàng jàngal ma saaroon ne kon doo doo jëng bilaay taalaay xanaa yow xalamoon laa tarkanoy na la china salamoon xaalooli irkan mooy jawaabi xaali bamba ko tontoon wa anta xaali nee keroog la bëggam bëkiñ banan billahi tay fase na addina jublu laayi axbalati dunya illa ya xablu wa bitu afasala ani kablu wa bitu ani adbarat walam amil ya لكونها دار سلم وبيتو أقبلت وإني أقبلت لله وأبقامني دم كبت زوج ما كبت ندم سي غور مولن ين خطا بيت لسي لدى نصارى ترى لمن لدى الله له ملتر ويل لمن إلى نصارى مالا ليك ينال مكة أو مالا هو الولي دهر لا نصارى خادمات خددان والأنصار إن المهاجرين والأنصار لم يبدوا يهود والنصارى keroog la Bamba teeñu fa yanam ba wettali ko Yàlla ba dem Maayomb ngir bëgg ramu jamono yonen ba Tuuba liman balaxa moo di yan ba aw la baal yam taatanuñ ko moo ko gaañam dangay diweyi te tawatul balaaya sooratul ahwaali la am sëriñ si xis naan ko bamba yaa di kaamil mbër yëpp suq lañ bamba yaa di kaabal man sakk fii saalika fal yu jarribi wa man yu jarrib baabi taqarubi jaayante naag yàlla te dootul xàcci rijaal yi seere nañ ko musa saji loola taxoon bamba naan yaa xawmi sababu xaybati yaramu réew mi sababu xaybati an allah arada an anaala min ujaaha wa an shafian li xawmi wa an akuna man fi daw mi ca moomar la bamba sañ ci baare biis xaalixi baraaya baare subhaana rabbika jeexul waaye danoo magal danoo bëgg a jëm ci mag léegi xasida yi moom kenn da ci dul retraite sëñ ma sàmba waaye sëñ Cheikh noo ngi doole sant baax ngeen gisee ñaari nag noonu bu jàngee xasida jàng jasaawu sàkkoor sëñ Tuubaa moom am na droit tagg yonent bi waaye nu it am na droit tagg ko nag waaw kon gannaaw sëriñ Moussa Ka daf na waxi jaar jaaram wax nu dayoom ak meloom